waaw dégg ah, waaw déglu rek sant rek. Euh, métti na trop nag ci biir parce que dix heures laa jógee sama kër bàyyi fa sama njaboot. déglu soo ba léegi sama jànk mi may woo mënu ma ko jël. te ku ma jàkkaarloo woon section de recherche du moom laa jàkkaarloog tey. ma bëgg ma xamal sénégalais na leen jàkkaarloo maag aji samba abidjan yi laa jàkko waa abidjan laa jàkkaarloo wala yanzim ku ma jàkkaarloog tey du aji saar mais dina ko muñ nag te dinaa ko muñ muñ bu rafet te lépp loo xam ne ni tamit gis nañ ko fi dañ koy dénk yàlla suñu borom bi parce que fii yàlla suñu borom moo fi nekk te dëgg moo nekk loo xam ne si àdduna la ko yàlla di wonee fii ba yomal xiyam kon nag fi ñu teg suñu tànk dee kese mooy tax ñu teggi ko tant que deewuñ fi ñu teg suñu tànk lañ koy teg duñ ko mës a teggi ba koro yomal xiyam tiituma rafuma aliyeeruma te yox yoxuma benn yoon parce que fii dara nekk fi lu dul yàlla dara amul fi lu dul yàlla te seen nga pouvoir fii la yem si àdduna tey nag jàkkaarloo wu maag ku ma toogaloon maa ngi jàkkaarloog Abidjan waa Abidjan laa jàkkaarloo te dama koy dénk yàlla suñu borom bi lépp dénk naa ko yàlla si kattanu yàlla suñu borom. merci beaucoup maa ngi remercier nag non jàkkaarloo maa ko bu loolu Adji Sarr bi jeex na. non du Adji Sarr non non bu moom rek dossier bi jeex na. wallaahi waaw. jërëjëf waaw Ibu Diallo jàkkaarlool. jàkkaarloo maa si nekk mais dama koy muñ. waaw waaw maa ngi remercier ñëpp nag. yéen maa ngi remercier. waaw ndax ndax li wax c'est c'est vraiment ñoo gërëm di leen sant gis nañ taxawaay vraiment métti na lool mais sant rek. macha allah sant rek duñu mu changé loolu mukk ci àdduna. non non wax bu wax ñu dara ah vraiment fekk waxuñu duñu dara. macha allah xanaa après ñu déglu si rek après lu muy wax kon li muy wax ko incha allah yàlla baax def na ci ñaan rek incha allah dina baax. merci beaucoup incha allah jërëjëf merci beaucoup merci. waaw ngeen dégg ko noonu ki nga xamante ni mooy Adji Sarr euh, ngeen dégg ki nga xamante ni aussi. jërëjëf waay Ibrahima merci. merci beaucoup. merci waaw dégg sama tey ñii fi waxal ba wallaay baax na baax na waaw ñii fi wax baax na waaw kay gis ngeen ko ndeysaan neex léegi noonu mooy ànd ak ki nga xamante ni mooy borom këram ànd ak